خليل يا غجا وانزلا بتواوني تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عيا وانزلا بتواوني سيدنا راجرا صلى الله عليه وسلم بإذن خالد مكة أم القرى مع صراط القدم ليصرف دار المقام دار الأمان والصلاة دار الفلاح والوئام دار الهدى والعصم صولا لديننا الحنيف في حفظ ربنا اللطيف منير أحمد شافي الشيمي محمد أحمد منزل Muhammad I you. Neng nga ubbee neex na lool waaw lépp yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam li cheikh wax rek nga wax yàlla na yàlla sa la kat na la di ñaanal sa baay ba ibrahima mbooj nga xam ne ku wax xamoon rek ci tagg yonent Al sallallahu alayhi wa sallam nga ko xam ak jàng alquran te loolu leen nampatal itamit dégg maam ba nga xam ne tey ci lañ taxaw kon suñ le indi fii nag dégg nga ci prestige tv gi kon indi nañ la ci foo xam ne fii war nga fee ñëw ndax ki nga xam ne mooy Pape Doumbouya euh, way juróom a ngi nii di Seydou Alaaji Seydou Doumbouya kenn ku ne xam na ne nitu jaxaaw la waaw du dëkk waaw mu nekk nit ku baax di asport di jàmbaar lool nangoo liggéey dégg nga moom tamit yar njabootam dégg nga ci dundee seen doole ak seen ñaq ak mën a dimbale dégg nga ñu ñaanal soxna Fanta Diop moom it yàlla na yàlla guddal fanam muy wajur Pape Doumbouya bu jigéen dégg nga di siyaare bu baax a baax dégg nga ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñu fas yéene rek ubbi ndax waa jaxaaw a ngi nii toog dégg nga ñii moom suñu tuddee dégg ma am waa jaxaaw ñii waa jaxaaw lañu dégg nga ndax man dumbee ma lay toog euh, way juróom dégg ma moom mooy chef de quartier ba te itamit euh, bari na ku am kër ci jaxaw googu ak caali way juróom moom mii moo tax nga am ko ci ak baaxam rek nekkoon na semaine de fer yooyu yëpp nekk nañ ko waaye muy xaritu tamit Pape Doumbouya yàlla def tamit dégg mu teew ki nga xam ne nag moom xëy na ci lay mujjee muy ustaas dégg nga Ousmane Mbaye di seetu Alaaji Njaase Mbaye kenn ku ne xam ne Alaaji Njaase mbay borom xam-xam la woon yal na yàlla dool leeram dégg nga ku jàngal ñu bari la waaw wuy juróom di Pape Mbaye dégg moom itamit mu nekk imaamu dégg maam euh, grand standing waaw moom yàlla def indi ko fii ci Prestige TV dégg nga muy yore émission boo xam ne bii bu am solo mooy dégg nga wàllu miraas waaye di waxtaan ci lépp tamit ndax xam sa diine ci lépp ne ku xool rek émission bi mu mujj def ki mu invité dégg nga mooy Alaaji Idrissa Gaye mm-hmm. dégg nga te tubaarkalla mm-hmm. su ngeen déggee li mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa ah, loolu am na solo trop moom mooy fas yéene war a waxtaan ak yéen waaye ñu leen présenté ki nga xam ne dégg moom mooy Khalifa Fall doyen la nga nee toog euh, tey jii defe naa ne kër gi man moom ñun ñoo ci nekk ay mag dégg nga moom bu nu ubbi mbir mi noonu la woon ak moom dégg nga mu taxaw ci taxawaay bu rafet Khalifa Fall koo xam coowam bariwul waaye nit ku dëggu la dégg nga te jox na ko cëram ba mu mat sëkk wàll bi mu féete itam mu ngi ko taxaw waaye mu ngi superviser lépp itam kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm di wax ne dégg am ñoo ngi sant grand sëriñ mi kenn ku ne xam na ko te gis ngeen ko ci télé bi fii li mu fi waxoon yëpp gaa yi gis nañ ko am déet kon nag grand moom Euh, defe naa ne sax jarul présenté waaye ñëpp xam nañ ko xam nañ itamit dégg maam dayoom te itam ah defe naa ne nit ki bala nga koo xam dégg maam dangaa dem ba këram ah du dëgg yàlla defal na ko moom wax dëgg yàlla grand sëriñ la wuute na ak nun nii nun petit sëriñ lañ ñun <laughs> waaw sama classe gi moom ay donga la ñun sax duñ sëriñ ay donga la ñun kon grand sëriñ noo lay dalal bu baax a baax sunu doom ji nga xam ne Euh, tur wi daam mi daam mii dégg maam nit alxuraan la dégg nga kenn ku ne xam na ne dégg maam sëñ Haadi Touré ca Fass Touré fa la jànge muy borom xam-xam boo xam ne bi bii tubaarkal alxuraan daanaka fii euh, ajjuma bu ne sa semaine mu wàcce kaamil alxuraan dégg nga def ko ci kër gi te alxuraan dañoo wax ne iqraw quraan fi buyutikum da leen jàng alxuraan seeni kër ndax alxuraan boo ko fee dee jàng dégg maam mboole mus yi ak balaa yi dégg maam yàlla da koy dax dégg nga moom muy jàng muy muy muy jàmbaar lool dégg nga kon noo koy sant di ko gërëm di sant itamit dégg maam ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñëpp dégg maam ndax xëy na day guddi waaye suñu caméraman mooy dégg maam ah kenn ku ne xam na ni sëñ sàttir na njoon dégg nit ku yaru la nit ku am am jom la ku am fula la ku baax la ku bëgg paab la ku dégg ndigal la ku bëgg kër gi lay tamit mu yokk boo ko xoolee sax dégg nga maam si journal yi muy def ak lépp lu muy def soo ko gisee rek da nga xam ne kii ko am yar la dégg nga moom tey moom moo yore caméra bi waaye suñ ko tuddee rek tudd nañ dégg maam mbooleem waa prestige yëpp noo ngi siyaare ñëpp. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di rafetlu seen jotaay bii nga xam ni. dama naan sax taalibe parce que moom taalibe la def boppam muy Pape Doumbia du wane boppam boo ko fekkee ci fii sax buñ la nee kii la doo ko xàmmee Serigne Cheikh dafa wax benn wax nee na ku bëgg di yëkkatiwu ba faw di kawe ba faw na nga nëbb sa bopp ci kàmbu nëbb moom nag loolu la def ñu ngi koy nuyu mooy kilifa kër gi ndax yàlla ni waxtul buyut min abwaabiha foo leen mënti dem am na bunt jaar ca bunt yi te bunt bi mooy moom ginnaaw bi ñu ko nuyoo Ousseynou nuyu na kilifa yépp mu darajaale ko Habib Kane dëgg yàlla moom it gis nañu teewaayam mu ñëw it moom it def participation ci Seydouna Muhammad Oustaz Mbodj kazalika moom it keroog Binta Samb dani ci annonce bi la koy woowee ñoom ñëpp ñëw nañu grand sëriñ mi ngi nii toog gis nañu taxawaayam gis nañu moom it macha allah message yu am solo yu muy jàllale ci groupe bi mouvement Thiès sa kanam ñëw ñëpp a ngi nii lii day wane ne rek dama ne Pape bu woote woon sax kenn du fi xaj mais moom lu muy def rek da koy bëgg a def ci sutura waaye bu woote woon kenn du fi xaj ndax li mu am ci nit waaye li am solo rek mooy innamal amalu binniyaat na yonent bi yëg sa participation ci moom rek keroog dañoo daje nga ne ma man de insha allahu taala dina burdu fi. ngir def sama participation ci sayyiduna Muhammad kon gis nga lolo waral mu woti fi tay waye nak siwulu ko ndax lu lu siw amul importance li am importance moy qabul li ngay def na ko yàlla nangu yalla na ko nangu Oustaz Mbodj dafa jang lu am solo ci burdu bi dama nan burdu buñu xamone li ci nek ci njariñ bala ñu teud chaque jour dinañ ko jang ndax Muhammadul Busayri mi bind burdu nee nañu dafa feebaroon ba paralysé ñu ni demoon na ba toll ci feebaram foo xam ni yaakaarul ni dina wérati ba def na testament li ñuy tuddee ak testament min baax baadi wasiyatin yusa biha aw dayn te yàlla naan kuy ku ku war a dem rek balaa ngaa dem defal sa testament waaye bi muy bind burdu yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu ko ray fa loxo ba paralysé loxo ba jaare fa wér muy tagg seyduna muhammad di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba àgg ci fa mablaxul xelmi fiihi annahu bashar taxaw mënatul àgg ni kii may woy nag ngeen gis ko may lim kéemtaan yi ak muxjisaat yi ko yàlla may mënul passé gratu nit te yonent bi nag passé na gratu nit qul innama ana basharun mislukum yuuxa que foofu la xelam toll yonent bi feeñu ko ni ko nag man passé na gratu nit teg ci wa annahu xayru xalqillaahi kullihim lu yàlla bind ci kaw suuf moo la gën loolu nag fii ak demoo ba reconnaître ni moo gën sa ndey ak sa baay di ko ndax ndax naa Omar dafa jëw ci moom ni ko yaa rasulallah yaa ma gënal ñépp ba mu des sa sama ndey ak sama baay yonent bi ne ko ah Omar ak see góode mu ne ko yaa ma gënal faf sax sama ndey ak sama baay mu ne ko al aana yaa Omar yaa ngi soog a si li nga gis góor gu taxaw wax ko jigéen ni ko yaam a gënal sama ndey ak sama baay fekk wax ja am na lu ko la sa ndey ak sa baay kenn rek moo ko mën a gën mooy Seydunaa Muhammad borom burdu bi nag tagg ci yonent bi jël burdu bi tuddee ko mantu burda mooy firi mantu ci arab wa hazihi burdatul muxtaar xaddu xutimat والحمد لله في بدء وفي خاتم نينا مانتو سيدنا محمد بن ماتنا سك ماغي سانت يالا بما كوماسي بوردو بي دوكو بيند اغال فينيشن بي باري وول فوف مو دولي يا ربي واغفر لقارئها يا ربي واغفر لقارئها وصامعها يا nee ginnaaw bi mu bàyyiwee diis qualité yi nga xam ni moo nekkoon ci àdduna bi yonent bi di dund bi yonent bi génnee àdduna dafa nanguwaat qualité yi yóbbu yóbbu ci kaw ñu ni ko qualité yi yenn kenn la mu ne yumnun barke xubbun raxmun maadurun xayaa sabrun zuhdun alxuraan bi te diis yooyu moom segam nekkut fi kenn waratul jaax si kenn bi ci njëkk mooy yum nun barke barke amatul demal ci entreprise yi nga xool da ngay liggéey ba weer dee nga fayeeku cinq cent mille francs du la jaar fenn yàlla nee na jamono ngi ñëw bu nit daan fayeeku deux cent mille francs mu dundal la weer soo ko fayeekoo du la yóbbu une semaine barke amatu fi wërsëg a fi am rek mag ñi daan nañu am salaire u cinquante mille jënd ci saaku ceeb jënd ci dëwlin denc ci argent de poste waye ñun kenn suñu suñu salaire doyuñu man mi sax leg leg ma fay ku ñëw sama soxna salaire bi di jeex na nangam ak na mëno salaire bi fu mu jaar suñ ko salaire bi barkeelul barke amut fi parce que kenn ku ci nekk no dóoree sa morom martu rek ngay xol dóorante martu gu metti mo fi nekk te yàlla wax na bàyyi leen ku baxul laa takulu amwaalakum baynakum bil baatil muy benn kon gis nga barke yi yéeg na dañuy liggéey ba xëy dee mais du ñu jariñ dara kenn ku ci nekk la ngay am doyu la moo tax jarul sax ngay fëgg kenn naa ko nangam ak nangam parce que mën nga fëgg koo xam ne moo la ëpp soxla ku la ëpp yi milliard ëpp lay problème ci àdduna bi kon yum nun beneen bi xubbun cofeel nee na cofeel jeex na yi réer na yóbbu nañ ko kenn ku ne da ngay ànd ak sa morom di maslaa rek ba ci ànd mariage yi dañuy gis góor ak jigéen di sëy kenn ku ci ne intérêt rek masla mais cofeel pur du fa nekk parce que jël nañu cofeel ji yóbbu da ngay ànd ak nit rek pour sa intérêt soo amee moom ci moom intérêt jeex boo ko amul ci moom intérêt bàyyi ko kon gis nga cofeel dëgg booy dox ci diggante nit ak nit te yàlla tax Cheikh El Hadj Malick nee na yóbbu nañ ko yumnun wa xubbun rahmun yërmaane yërmaane amatul kenn yërëmatul kenn waaw te yàlla dafa jël yonent bi yónni ko ci yërmbëne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla nee na yónniwuñ la lu dul nga nekk jëmb yërmande ci biir nit ñi kon gis nga yërmande amatul parce que yonent bi jël jibril jël na ko yóbbu maxdilun maandu fekk problème jàmbur wax ca ba sa gémmiñ tooy ñu bare dañ koy def nit dafay maandu problème mu jàmbur sa yoon nekku ci bul ci dugg waaye Sénégal dangay gis koo xam ne mi ngi avancé mën ngaa gis sëñ Habib nii mu ngi dem di avancer di yéeg yow sa jëmmu bopp avancé woo nga toog fi nga toog nga dégg ni ah nangam def na ko yàlla bu mu am nga nekk ci ni kii yéen di xamoo leen ko sax ba mu ko dalee def du léegi tey la feeñ maandu dafa am importance yàlla nee na na ngeen ragal yàlla te maandu seen diggante nit kazalika jigéen ñi loolu dafay am moo tax nit war na fexe ba jël maandu def ko torche di ko niitee ci yoonam yi mu jëm yépp waaw li ñu ko mën a may nag mooy defar buumu xol yi benn boroom xam-xam wax na ko nee na nañu defar buumu xol yi balaa ñuy defal buumu kurus yi kon maxdilun maandu réer na xayaa kersa kersa kazalika amatu fi jigéen ñee njëkk a jël sa sànni man dama naan góor ñi problème yu rëy lañu am ndax jigéen ñëpp rafet léegi jigéen ñëpp rafet produit yaa ngi fi fees dell jigéen ñi dañuy xeesal boo weex tàll tàll tàll tàll tàll pour rafet ñi ci gis koo xam ni sax jëkkëram da koy takk mu doon aawo mu am ñaareel gis ñaareel ba weex tàll mu ne xaaral ma jënd diw diw manit weex te yàlla neen laa tabdil li xalqillah sëñ Mbodj bu leen modifier peau yi leen yàlla jox kazalika jigéen ñi ngeen bàyyi ci xel xeesal sax euh, médecins yi nee nañ am na lu muy joxe ñu baax baaxul parce que baaxul ci santé sax waxuma laa ñu koy def te léegi ñëpp a ngi xeesal beneen bi mooy kersa amatul si góor ñi parce que am na góor ñoo xam ni amuñu problème dinañu julli dina ñu woor dinañu joxe lu baax dinañ nat azaka mais leen rekk seen problème xale bu rafet la bañ a gis loolu am na ñu mel noonu gaa yi dañoo dëgër fit ñaari bayti ñetti bayti lañuy tax taxañ rek génn wut ñetti mbubb ñeenti mbubb ànd ku leen topp ci ginnaaw ñu commencé toj dëkk bi looloo fi bari ci biir dëkk bi moo tax nee na alxuraan gu ñu négocier rek moo fi nekk waaye alxuraan dëgg dëgg dëgg amatul dañuy dajal nit ñëpp ñëw ñi jàng alxuraan bari na ko naan la wàcc nak ski sama doom bi wàcc na kamil tari na kamil bi waaye xamul la na ci bir kamil ba min athari sujud zalika mathaluhum fi التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم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 wa rahmatullahi wa barakatuh. alaykum assalam wa rahmatullahi ginaaw biñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ci may gi nga xamanteni bi mayon nañu ñu fekke daw mu ñuy jallaxaat ba ñu fekke ren ñi ngi sukku ci kanamam tay talal suñuy loxo di toroxlu di ko ñaan yal nañu may ñu fekkee déwén ak déwén yu bari bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye di julli bu baax tey sëlmal ci yonent boobu nga xamante ni bii mooy boroom guddi gi li fi ñoom Sàmba Mbooj def ay matxu ci moom mi nga xamante ni bii bu dul woon ak moom yàlla du amal dara ndax maam Cheikh Seydil xaaj Malik ne wa ma xalaqa rahmaanu say an li nafsihi samba bu dul woon ak njol makka yàlla du amal dara yàlla dafa bind li mu bind ngir terale ko seydina muhammad sallallahu alayhi ñuy julli bu baax di sëlmal ci yonent boobu di sant bu baax oustaz mbay mi daane legi di sunu serignu dara tabarakallahu may yal na gën la ar yal na gën la sam wolof neena na bala nga xam ni ndono wor nga dakk ji nax ba mu tabbi ci ñak doko seppil séppil doko xolé yaramu dag takul tul del bu deuguer mayu ko ko da ci mamam ku sa baay Cheikh Ahmad Tidiane kuy baayam alaaji njaase mbay kuy sa maam maam alsaan mbay waaw loolu ku mu doyul ci xam-xam lu lay doy mbay yal na yàlla gën laa aar yal na yàlla gën laa sàmm yal na yàlla gën a barkeel bi ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaamu shafix ne man lam yazuq zullan taallumi saatan tatajarraha kahsal jëli turaqayaat yi kon mbay ñu ngi ñaan sunu borom yàlla na yàlla gën laa aar bu baax yàlla sàmm la di nuyu sunu jur wi nga xamante ni bii moo fi teew di Baye Sidi Doumbouya Baye Ousseynou Mbaye yëpp nga ni Pape defagul dara sas Pape defagul dara déedéet résultat juróom wii toog mooy génn waaw góor gi dafa jënd saako ceeb teg ci buntu kër gi woo taaw bi mu ñëw mu ne ko doom jàppal doom ji ñu ñaq saq caaku ceeb bi yëkkati foofu jug mu ne ko bàyyi yëkkatil baay bi ñog mën mënta yëkkatiku mu ne ko papa yëkkatiwoo woo bi ni ko doom bu ma fontoo maa ne foofu ne fii maa la jur may sa baay waaye lii du kenn ku dul way jur wu tedd wi kon dumb yaay ñu ngi lay bàyyi si di ñu ngi lay ziyaara bu baax di la ñaanal yàlla na yàlla gën a fekk fan wi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla gën laa aar ci weer wu tedd wii di nuyu ah wax dëgg yàlla DG Pape Doumbouya di ko ñaanal yal na yàlla gën koo aar yal na yàlla gën koo sàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu li Baye Ousseynou wax léegi rek foofu la ñuy jaar Pape kilifa gu baax la waaye kilifa gu wàcce boppam la lépp lu ñuy waxati yow doon duñ ko waxati déedéet dañ koy soppi ñaan. ila ñaanal yal na yàlla gën a barkeel yëngu yi yal na yàlla defal la làmmiñ buñ la catu ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu yàgg ñi nga àndal ñëpp pap nit ku baax la dama tëdd feebar jël photo yi envoyé ci groupe gi mu job envoyé ko ko pap xol ni ko grand serigne li ko dal mu ko dafa feebar mu jël xaalis bu bari def ci enveloppe mu fekk ma hôpital indil mako li may wax ni amagul une semaine waaw loolu tuutiwul kon wax dëgg yàlla Dumbuya bég nañu kontaan nañu yal na yàlla gën a yokk say xéewal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu jëm ni di ko teg suñu loxo papa Baye Sy Dumbuya di nuyu ku ci nuyu imaam maa ngi leen di nuyu yow Grand Serigne Dakar ak yaakaar naa ne waxtaan bi waxtaan nañu lépp euh, loolu seetloo sànq sëñ Ndiaye mu ngi naan waxtaan sëriñ Serigne Babacar tuuti man dama toll ci Serigne Babacar foo xamante ni bu ma toogee ngay waxtaanee keneen sax damay nelaw man Serigne Babacar rek mu ne moo ma defar man lu ma am Serigne Babacar nu ma mel Serigne Babacar fu ma tax a wokk ku dégg baax na ku ko déggul baax na. lepp lu ma am ci aduna rek serigne Babacar sank nak deg na ci sa biir wax nga ni nit du gis yalla yalla du jëm ji ñi gis mais jëf do koy gis fu la yalla defale rek ci gis nga yalla man de gis man man de gég na ni sama yaram gis na ndax li may sama yene ta nek sama xol mako def say su ne bu weso mom ak bi sallallahu alayhi wa sallam ak samay ñaari waajur kon yàlla gis ko ci yëg-yëg la ak dégg-dégg ndax nit dina toog jaaxle nit waaxu ñëw ba ci moom yëkkati jox ko am na ko wax ci léegi ci yéen te du xam fu mu jógee wala nga dégg toujours maa ngi koy wax samay kàddu di nga gis jigéen ju nekk ci ëttam nit fëgg ko ne ko ana alaaja mu ne ko mu ngi ci biir mu ne ko am joxal ma ko mu jox ko allaaji xëy allaaji ne ko kan la mu ne ko xaw ma ko du ko xam yàlla la loolu nekk la waaye dañuy wax di wax may dolli di wax nii daal wax ci lépp wax nañ ko Pape Doumbia nag li ma booleek moom jarul ñu koy wax moom xam na man xam na yàlla xam na bëri nañ fi ay moroom lañu bokk benn vision bi suñu boroom def man ak moom ñu bokk yoon yoon bi mooy ànd bi nit mën ngeen a bokk yoon te doo leen ànd waaye yàlla def na ñoo bokk yoon mais ñooy ànd boole ci nag ñu maase bokk jamono suñu magante tamit suñu magante bëriwul boo ñu fekkee ñu taxaw doo xam ko mag sa morom xëy na wan naa ko kersa goo xam ne sama digganteek moom dama koy xool moom yàgg xam na sama naqari de xam na sama tàngan mais nee naa ko yéen mel ni yow rek yaa mën a maîtriser. lu ma fekk ma téye mu ne ma bàyyil ma bàyyi su ne ma xoolal ni ma xool su ma xoolee sax bëgg def dara damay bàyyi ndax jëmm loolu nag yàllaa koy def ci nit man samay dëgg du ma ko nëbb lu ma bëgg wax nit wax ko lu ma sentir dama la koy wax waaye man saa bu ma sentir dara ci moom loo xam sax def na ma ko loo xam neexu ma sax ma bëgg wax mu ñëwee ba tiim ko fàtte ko dafa ma egsee mu reetaan ma reetaan bu sewam boobu nee ma maa ngi nii ma xam ne moo ngi nii ma ne ko ma ne maa ngi nii ñu nekkaat ci waye di len gërëm yeen ñep di len xam ni on est des frères li rek dafa neex li ñu def ni rek dafa ra te li ñu def ni ñaan nañ yalla ëlëk suñu njabot def ko ñew tok yoon li jak tok seen ginaaw jakarlo ñom te yalla nañ ko yalla defal ñun ñep bañ fekk ko daraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak barke Serigne baba gassima ma yaakaar jërëjëf kon ñoo ngi sant bu baax ñoo gërëm su ko defé rek de nga xam naa njóobee ne njaay ni palaat yi fimne mu dara de nga dañu bëgg ñaan rek waye no ngi ñaan di leen wax ne nak lii nag ñoo ko defee fii dégg maam ci Prestige Thiès TV ci ndigalu kan Pape Doumbouya dégg maam mu baax mi daal di ne nag yonent bi salaa salaam ñun ñëpp ko bokk kon moom daa bëgg Seydina Muhammad salaa salaam donte dégg maam taalibe Serigne Touba la dégg nga Serigne bi mooy sëriñam waaye nee na bordu bi. nee na moom da koy def fii de mu bi mu ko defee tamit seet na doomu ndeyam di xaritam di léppam di wëlëreem muy kan muy Habib kan mii dégg mu dara jaal ko bis bi waaye woo kilifa yi dégg maam wéy juróom ak ñëpp ñoom ñëw nañu waaye oustaz Mbaye mi mu tànn na ko dégg maam Ousmane Mbaye moo doon def waxtaan wi waaye ki nga xam ne kii mooy Samba Mbodj dégg ngeen ko moo doon jàng jàng mu neex moomu ànd kook ñi mu àndal waaye dégg ngeen grand sëriñ dégg maam ci kàddu yu rafet yi mu fi wax dégg nga daam mi nga xam ne dégg maam kenn ku ne xam na ni mënoon na wax ne daam alquran ndax fas mam a ah, ci keur hadi touré de mam fa la jangé de ngeen jang alquran mu neex mi de nga kon nak ñoo ngi sant ñep wa jaxaw ñoo kenn waaw ada binta sam mom tamit ñong koy sante bu baaxa baaxa baax ndax def na avant premier bi and ko ci ñamar sek de nga wo ci ñep wax deug yalla te lolu tamit de nga dañ ko te sam mboñ mi ci wote bo mu wote wo da ci la wo waye demul kërëm de nga kon lolu tamit ñong ñaan dégg nga maam Adja Binta Samb yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla wéral dégg nga yéene bi mu am dégg ci euh, Pape di ko ñaanal yàlla na ko yàlla nangu waa Prestige gépp dégg nga ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm lii nag ñu xam ne dégg maam incha allah fas yéene na dégg maam at mu nekk dina ko def ngir lan ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee fii nag lañ ko doon defee mooy fan ci Prestige Thiès TV fii ci Ngent dégg nga ànd ko Pape Doumbia di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk julli kon ba سيرين شيخنا بل هدانا فيها اليمن للمتيامن خليل يا عيا وانزلا بالتواون